mouvement Mbour Set mën na nekk dañ koo kàddu nguur pour ñu collaborer ci benn opération bu ñuy wax clean day mooy dañoo gis ni dëkk yëpp ñu ngi raxas seen dëkk yi ñu ngi fomp seen dëkk yi ñu ngi defar seen dëkk yi ba mu des Mbour ñu jël engagement ak suñuy initiative ñu ni pourquoi pas ñun ñu démarrer suñu bopp bañ a xaar état bañ xaar kenn kuñ ci fekki nag kuñ ci fekki si rek ñu jël ci lañ initié projet bi ñu ni le 8 décembre dañuy def benn euh, set bu mag boo xam dañuy commencé croisement sali ba station Shell gars yi ñaanaat ñu ni nañ continuer ba terminus parce que dañ ci ñu ciy liggéey ak préfet ak le maire de la commune parce que quelque soit le fois tamit ñoom ñooy autorité dëkk bi premier jour ñu ngi réunion ak préfet tout le temps parce que dañu bëgg aussi ñu defaale benn euh, déguerpissement parce que tamit ku jógee croisement sali ba ñëw bu gis nga embouteillage ak désordre bi am ak saleté bi donc ñu waxtaan ceeg préfet pour jéem a nettoyer tali bi defar ko ba mu rafet jéem ko décorer et puis ñu solliciter état bi ñu utal ñu ay lumière croisement Saly ba station Shell ba Terminus ba Oncat bi def ay lampe mu leer nañ kuy dugg Mbour nga xam ne yaa ngi dugg ci dëkk bu baax comme ni Fatick leere yeneen dëkk yi leere ko li tax nañu initié kii bi boole ci Mbour waa yëpp lañ ci invité ñëpp dem nañ ci ñëpp toutes les autorités muy politiciens yi muy imam yi chef de quartier yi mouvement association yi ñëpp lañ dem seeti leen wax leen ni leen affaire bi ñun moomuñu ko waa mbuur ñoo ko moom te buñ bëggee tamit mbuur luñ luñ sumb ñu daan ko il faut xool yi yaatu il faut xool yi ñu nekk benn ñu yénente jàmm ñu ñëpp ku nekk jàpp ni sa morom bu defee benn affaire wala ci jàpp pour mu réussir ëllëg keneen def ñu jàpp ci pour mu réussir parce que mbuur ñu ñoo ko moom initiative bi mooy bu njëkk bi am na ñeneen initiative yu ñu bëgg a def mooy suñu hôpital bi gra Mbour amul ay ambulance lu toll ni Mbour département hôpital bi amul ambulance médicalisée amul benn ambulance bu baax dinañ def initiative yeneen yoo xamante ne buñ paree mburu bu nekk ku mën a joxe 1000 francs 100 francs ñu versé ko ci hôpital ba mu mat ñu jënd suñu ambulance médicalisée yóbbu hôpital parce que ñun ñu defal ñu ay bureau de passeport fii Mbour nit ñi sonn nañ war nañ xeex tamit ñu defal ñu fu ñu defaree permis numérisé dañuy déplacé dem ba Fatick wala Thiès dem di fanaan foofu 2 jours pour am permis donc yooyu ay xeex la yu Mbour war a xeex loolu am ci dëkk bi parce que defal ñu impôt domaine di enquête suñu xaalis di ko yóbbu nañuy retourné waat xaalis bi tamit ci population bi mbuur waaye di gis seen bopp ci état bi parce que tout temps dañuy gis ne dañuy promettre ay tali dañuy promettre ay infrastructure mais duñ gis dara mais buñ booloo ñun mbuur waaye je pense que ñun war nañ mën defar sax suñu bopp ay goudron ay tali yoo xamante ne duñ xaar état mbuur waa bu nekk bu participer ci ci am ak ci moyens yi defee Touba mbuur war na egg xaar ci état parce que ñun ñoo war a moo tax ñuy am yaakaar parce que gis nañ ay génération yu nekk ci jeunes yi yoo xamante ne vraiment am nañ confiance que ni mbuur demain ou après demain dina nekk mbuur boo xamante ni ñëpp dinañ ni est-ce que mbuur bi la woon parce que am na mouvement yu bëri yu nekk mbuur ñu mel ni Mogem mbuur justice ak taxaw sa gox Sedim ak euh, mbuur Seck mën na nekk ak Synergie ak yeneen mouvement yi nekk mbuur yëpp yoo xamante ni seen xeex yëpp suba ba ngoon matin soir mooy nan la ñuy def mbuur développé donc dañoo bëgg doomu mbuur yëpp daal ñu nekk benn te xam ni lépp man su may dox benn affaire pour mbuur kii buy dox benn affaire pour mbuur man moom moo ko moom moo ko mbuur waaye yëpp ñoo ko bokk tey su mbuur amee ay infrastructure tali bu baax lampe bu baax du Cheikh Ndiaye moo ciy dox moom donc du Diallo moo ciy dox donc nañ ubbi xol yi ñu jàppalante ñu am solidarité suñ biir mënuñu jeexal aussi sans remercier autorité nga xam ne depuis boobu ba léegi coup de fil fu nekk lay jógee muy ministère bu nekk di nga xëy woote wax lan laa mën a contribuer lan laa mën a participer am ñoo xam dañuy participer ay autour ay 2 millions ci ay matériel te dañuy wax bu kenn tudd seen tur donc ñu loolu la xaar ci mbuur yeneen yi ñu bañ a xool ni diw moo ko def wala diw moo ko démb woon nañu xalaatuñu woon sax parce que waroon nañu ko jox am joxaguñu ko mu engagé wu def loo xamante ni bëggul sax ñu tudd turam donc solidarité boobu lañ bëgg mu continuer bu ñu jógee ci li ñu engagé yeneen solidarité yoo xamante ni mbuur waaye dinañ mën a régler seen i problème sans ñu xaar état bu kenn découragé parce que li ngay def tu parce que mbuur waa bi suba dafay jógee mais mbuur suba dafay nekk suñuy sët suñuy doom mooy kon ne dafi nekk donc dëkk bi su baaxee ñun ñoo ko war a defar nañ ubbi xol yi yéenante jàmm parce que bu ñu bokkee benn affaire muy mbuur muy suñ papa di suñu yaay ñun ñëpp war nañ ko yéen a jàmm mooy papa bi mbuur mooy suñu parent ñun ñëpp kon ku nekk war na yéen a jàmm mbuur donc jarul xiiroo jarul ŋaayoo jarul xuloo